ngok kafien ngok wa kafien Kaffrine ñoo nekk noonu ca wa big na Dakar waa Dakar ñoo dugg Batista ngok Batista Amadou sekan pay <laughs> he le grand champion le Messi wa <laughs> wa Mbaye Diop Palmarin babu Kaling wa wa aca gaay sa he eh, saya kena bangkok. awal sini bang yang sini bang ni awak anak dom dem tadi sini yang Eh, dia ngom. Hey. wow sini bag Karang Xaaral mu pare, bu yakam ci parah. mu waaw sow Mali waaw waaw sow Mali a ngoog 66 kilo Dakar 66 kilo sow Ndar का वोटर te waaw Ibou Ndiaye Oboli eh Obbo Ngok waaw waaw eh Obolo Ngok waaw waaw final moom mooy finalu épique de mooy finalu et ça plus de 100 kilos bi waaw. Abba si Bodian. président de Dakar